nee na moom gisul lu gën a noppale Seydi Ahmed Tijaani waaye mooy li mu doon wax nee na di ko fàttali kóllëreem ak Seydi Ahmed jëmee ko ci ñun ñëpp mbokk taalibe yëpp nee na ku jàpp tariqa bi fees ko war a kan ko jàppee ci moom wanu na ku Seydi Ahmed Tijaani te cheikh it wanula kudul maamam rasulillahi yonent yàlla Muhammad te maamam yonent bi kudul yàlla boo julleetee farata nga tëje ko benn peru jawhara sañ nga am ni julli yàlla nangu na ko nga wax ko de nee na jàpp tariqa bi fa nga war a jàppee soo julli julli farata bu doon nga jàng gannaaw julli ga benn jawharatul kamal sa yaakaar bu julli kii moom yàlla na ko sañ nga am yaakaar ni nee na loolu nag junj la beneen bu ci des nee na ku ci defati sa wird wala ibaada bu mën a doon wala nga pare sa wasifa nee na gisul moom tembre bu gën a gaaw ñetti jawharatul kamal nee na boobu moom Sayyiduna Muhammad ci boppam moo koy yóbbu muy yóbbu courrier bi te si ah Sayyiduna Muhammad nag courrier bu tege ci loxoom kenn du ko dellu nee loolu nag nee mu ngi leen ko joxe ci seen barke kóllëre gi ngeen am ak Seydou Ahmed ak bëtu ñeewante moom lim leen xool ndax. ku yàlla baaxee nee na kenn mënu koo xañ xam ak yëg li te moom yëg na ni moom moom Seydou Ahmed mii fa ma connecté wu foofee la bëgg ñii nit ñenn connecté fa direct la nee na moom jéemul sax di leen connecté ci keneen maa boppam. nee na fa mu leen di connecté fa mu leen di connecté foofu connexion pleine ngay am foofu foofu kenn kenn dafa manqué connexion nee na tey itam nee na da ngay amaale accès illimité booba waaye nee boo connecté woo ci kuy mu yëg ni moom day feebar day xiif moom it day mar yëg dafa mar ami soxla di ko doxi mu kooku waaye bis bu xiifee wala mu mar boo ko dee connecté wu fekk du ko tal xiif mooy tax du la tal dëgg la si kon nee na yàlla baaxee na leen baaxee nañu nee na lii muy wax ni nag junj la loolu yàlla zéro la ci moom ak koo mën a doon ndax noo mën a toll dafa am ku la bind kooku la bind moom kenn bind ko waaw nee na nit nu a toll dafa am ku ko bind te ko bind nag kenn bind ko nee na léeg-léeg da ngay toog dégg Sénégal bu yàqu gi ku la naan cooy ci wolof mooy subhaana ci yëpp est-ce que bokku jëm nee na yaa ko waxal sa bopp nee na Seydil Hadji Malick ba nga koy askanale ah moom day bind na ko fi lu bon bon ci tànt bi am na ñoñ dund na yoo ñu dundandoo Seydil Hadji Malick wala ñu dundandoo ak Alaaji Maalik sax ci boppam jàngal leen nee na sunu maam ja Cheikh El Hadj Aziz moo daan wax ne ca ndimbalal kese du ko wax mu ni maa lànk du ma jël Cheikh Seyd Ahmad Tijani jënde ko yàlla bu ma jël Sayyidina Muhammadin ma lànk du ma jël Cheikh Seydina Aji di ko jënd yàlla lii may wax su dee yet bu ma yàlla war a fénquloo ci boppu Alaaji Malick man ab ko danaa ko ci dóor des ak yàlla ñëwaat ci Alaaji Malick nee ko góor gi nag sagam yaa ma jur te yàlla la bind bind ma nag seet man ak yow nu ñuy def nee na lii mu gis ci Seydi Ahmad yàlla dong moo ko tax di wax xamul bu fi jógee dana yegg këramam déet xamul ndax da ngay di yeewu suba ñu leen Alioune ma toogoon fee ca jataay ba nee na kon kenn jaralu ko bis buy wéet ak ba xam yàlla yéex moom dong moo fay nekk Alaaji du ko fekke leen am na fu la ñu toll su ko yàlla walee duma moom mii su ko yëgalee mu ne ko noppalul baal ma dumaal la ko man nii man <laughs> loolu mooy tawxiid nee na ngeen amal affaire nee na moom mu gis Seyd Ahmed ni mu ngi buggal tawxiid ci seen xol yi nee yéen nag am ngeen chance yéen a ngi dundandoo moom mën a am accès ci moom te tëjuwul ngam nëbbuwul ndegam nag ñi nga xam ne. accès bi ñu am ci Seydi Ahmed c'est virtuel waaw kay virtualité ñi ko xamul mooy ñi nga xam ni jotuñu ci moom nii ci réseaux sociaux yi lañuy ñuy jamaka di seetaan vidéo yi mu ni segam ñooñu ñoo mën a jub maslama ak yéen ngeen xam ne accès réel ngeen am nee na ñooñu ñoo mën a jàngee ci moom bu wëlbatiku noppal ko nañu jàngee ci moom ñoom ma ñuy ci moom ñu ci jàngal seen bopp nee na kon nag yéen ñi am en chance am accès ci moom góorgóorlu leen ba ñooñu buñ leen raw. nee na yàlla dong ma ko tax di wax. nee na kon njukkal la buñ ko war a delloo di ko ñaanal yàlla fan bu gudd wér mucc lu tax. nee na ci tax ba kenn du la nax yow doo nax sa bopp ndax lim lay njëkk jàngal daf lay jàngal ni ba dootoo nax sa bopp ku dul nax boppam du nang kenn di ko nax dëgg la nee kooka nag da war a ñaan mu yàgg fa ndax kat su dul woon tubay ah julli la la ñaan yii dana tubay wala sër julli li muy foor foor bu dul woon ñaar yooyu ah julli li muy yéemee mu ngi jégalu si neen di leen xamal ne nee na moom sëriñ bi kenn la ci suñu biir gën caa xeebu moom lu dundal ruux rek wallahi loolu rek lay wër wallahi si nee na tey fépp foo xam ne su ma fa demee gën a not sama bakkan nee na même bu may raam danaa dem il faut lay yàggul adduna yàggul adduna yàggul nañu dellu ci yàlla balaa ñu ñuy delloo ci yàlla nee te ku nekk loolu mun na ci neena na te xamuloo fu muy wàcce ak nu muy wàccee ci sa kaw nee na suñu maam yu baax yi yi ñuy tudd te ñu jiitu ji àllaaxira nee lan lañ leen di defal dañ leen di ñaanal dong nee na xam nga ku am maam yu baaxee noonu te da leen di ñaanal doom te yow mënoo seen seen pënd nee na nooy wokkee sa doq nag di raay say lex naan yàlla baax na yàlla baax na waaye yàlla maandu na de te suñu borom nag dara bëggatu ko dara safu ko waaw nee na mu ngi jéggalu di baalu xàq bu baax di leen xamal ne ci seen mbooloo laa bokk def si def nee fii moom yëgu fi bopp yëgu fi mbindeef aji bind ji la fi yëg nee na moom mii de jaam bi nee na sëñ Ahmad daf ko yàgg a def tatabbu maanaam daf koy topp daf ko yàgg a suivre amul audio amul vidéo benn bu soob yàlla mu jaarale ko ci moom te moom dina dina ko du duni dina ko déglu dina ko jàng nee na am na ci ay kasetam yoo xam ne bu demee bay dallu da koy teg rek. ni ku nelawaale ko lañ ko nee na sëriñ bi toog nee na moom lii wax na ko miraaran yàlla boole leen mu yàgg koo jëw moom Seyd Ahmad ci xaritam bii toog soppeem bii wëllëreem bii te lépp nag xaritoo gi ci yàlla la cofeel gi ci yàlla la kóllëre gi ci yàlla la nee na mu toog bër ki démb wax ma woo ko rek mu ni ma maa ngi nii toog ak Seydi Ahmed nee na mu ne ko ndax damay ñëw léegi ñoom ñaar ñëpp ne ah déedéet bul ñëw léegi nee na ñu ne jameet na moo ne day ba ma julee tisbaar seetaan naa vidéo nde mu la seetaan dëgg la si dëgg si dëgg la nee xam na ni Seydi Ahmad sax lii mu nekk di wax mu ngi koy déranger lii muy wax ci moom mu ngi koy déranger waaye nag dérangement boobu dalaa bëgg a déranger sëñ bi da lay déranger nee na moo doon koy wax waaw nee na sëriñ bi yëgoon ni lii la bëgg ma wax ma lànk du ma kay nee na xam gi xam ni bëggoo mu wax ko moo tax mu di ko wax bu yëgoon ci sa bakkan ni bëgg nga ku la ko waxal du la ko waxal leer nee na kon nag dafa bëgg ngeen xam li leen yàlla defal nee bu nee ngeen xam nee moom mu ngi ci biir ngeen xam jooju ndax ëttu yàlla boo fay dugg si bëgg a dem ci yàlla xam nga lu la yàllay wax xalli nafsaka wa taala mu ne ko yàlla nee na da sànni sa bopp yow ba pare dog a ñëw boo fa indee sa bopp doo fa dugg ba fa sa bopp ci sa te aksi nee na ngeen baal ñu xaq Seydina Ahmad mu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi seede ni kontaan nañ nee na jotaay bu mel nii ku ku ku ngërëmal yàlla jiituwul ci yow wallaahi doo ci jotaay nee na xëy na nag mënaguñ ko xam ndax lu yomb duñ ko jox benn gëdd nee na olof lu yomb du ko jox gëdd nee moo tax jariñu jafe ñu dëgg la Seydi Amar Tijani nee mii toog nee mooy première sëtu Seydina wa Mawlana Abil Abbas Ahmad Tijani Seyd Ahmad Ammar nee na boo demee Kourdaan ci eh. nee na kii turandoo nee na boo demee ci baytul xalwa Seyd Ammar Ahmad at Tijani Seyd Ahmad Ammar kenn ci raw xaanam ya benn ci raw xaanam ya moo fa desineel boppam photo sëriñ bi fa daan def xarwaya nee na wallahi xatal aana suñ ko peinturé photo bi ci boppam day génnaatal boppam waaw waaw nee na maamam turandoom na ah nag nee na xam nga ñan ñoo koy am nee na ahlu Cheikhuna Tijaani ñoo koy am ñoom nee na ñoom nag nee na ni seen maam nekkee min ahli sayidina muhammadin nee na yàlla daf ko jagleelee noonu booleelee leen ko ak lépp lu génnee ci ñoom moo tax lépp lu seen maam am am nañ ko tasarruf bi seen maam di def ñoom ñii mën nañ am nañ ko waaye dañ ko rus def G. na ñun nag lañ cay boole mooy jaayante bi ñu xam ne dañoo jaayante ak yàlla lu tax inna alladina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allah nee na loolu nag dafa diri mbiccam ba ci ñun ñii ñëpp ci suñu digganteeg si rahmat mi nee na mu laaj leen benn laaj nga tànnal sa bopp ak yàlla tànnal bu leen gën di wuyu de suñ bee koy nga tànnal sa bopp ak yàlla tànnal la bu leen gën a nee na souvent nag li ñu yàlla tànnal ñun dañ koy desal ah. di wut ñun lu ñu tànnal suñu bopp nee na ñun ñooy kan bay tàmm nee na bëri na da koy waxal mbokk mi ñi jóg jëm ci yàlla mbooloo la ñuy nuróol wallaay nekkate yoo kenn dong mu te jóg jëm ci yàlla nee xam nga noo leen di xàmmee mbooloo ma bu ñu jógee ñu nga jëm ci yàlla suñu boroom commencé feeñal ay xéewal fekk yoo ndekete xéewal ya nag gësa raxal la ñoom ñu yitte woo xéewal ya <laughs> suñ lay wax ko yàlla xéewal yi lañ lay wax kon yëg ñu war la yàlla ñu war a ki lu ko yàlla sànni ci xéewal ak yi ngi leen da koy dévier moom yàlla dimbali ma yaa ma dàqal lii sànni nee na xam nga nan lañ mel nee na jëlal sanqalañ bàyyi ko muy ñëw nga teg sa loxo nee na sanqalañ bi nu muy def sanqalañ moom du yëg sa loxo da lay wër nga def nii nee na sanqalañ gi nga def ne mu teggiwaat nee na ñëw mi nga xam ni yaay teg sa loxo boo moytuwul yaay sonn bàyyi. nee na ku laxasaayu jóg jëm ci yàlla nag noonu ngay mel.